asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk se tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëggee bu wér di leen waxal ni tey nag duñ def live bi quoi lu tax duñ def live bi moom mooy dama nara a seen cottu nday quoi Macky Sall laa nar a toj cottu ndayam moom ak jabaram laa nar a xar seen nday ñoom ñaar bu ma defee live dama nar a toj seen cottu nday ñaari doomu xaraam yu gën a kàtt seen doomu biiral yooyu laa nar a dëgg seen nday Macky Sall ak jabaram kon loolu xam naa ni tey bu ma duggee dinaa xar seen jo coppare nday ñoom ñaar ñooñu léegi comme loolu duma ko def damay ñëw def taf taf xamal leen ne affaire bi suba la suba laay ñëw katt seen cottu nday ñoom ñaar Macky Sall dinaa toj sa job bu nday saa yow yeewoo boo fi waxee troisième mandat dinañ daqaar sa nday loolu man maa la ko wax xaaral ma def nii sax mu leer dama ne Macky Sall boo fi nee troisième mandat dinañ daqaar sa nday yow koo àndal dinañ dëgg seen nday taal seen kër yi katt seen nday seen doo yi la ñuy tër rendi nday seen rendi seen nday loolu man maa la ko wax yokk sa jabar da ngay kat sanday tàppet bu dëgg sanday bi maa fokk bi ngay kat sanday di jàppaate yow di jéem a jaay dinañ dëgg sanday bëccëgu ndar kamb man maa la ko wax yow Macky Sall tey nag duñ dugg sax ci ay laay damay ñëw def benn affaire bi taf-taf récapitulation vite fait suba mooy live bi suba laay ñëw toj seen cottu nday Macky Sall jabaram caga bu katt ndayam boobu nga xam ne ñëpp katt nañ ci bala Macky Sall di jot ci jabaram bi ñepp kat nañ ci data bi ngandal la yore data océan Atlantique la yoré kat nañ nday dina ko indi faram yépp yu ko kat jabaru Macky Sall dinañ dëgg sen nday da ngeen di jema jaay nay da ngeen di jema a nit yi kat dinañ kat sen nday man mako wax man Mollah morga dina dëgg sa nday Macky Sall yow beccu ndar kamb sa jabar dina tot tot ndayam dina la indi ñepp ñi ngay kat ci palais bi yow Macky Sall ak sa jabar ñepp ñuko kat ba ci mambay Mbaye ko mujjé kat Macky Sall sa jabar Mame Mbaye kat ndayam ba nga yëg loolu nga nga wacce ko ñew tek ko ci palais bi diko xol mo mo mujjé kat sa jabar ji ba nga togué té ko wétu palais après nga ko génné lepp dina kat ndayam ci biti suba inshallah suba lepp lay kat le fal ndayam ci biti man ma wax lolou man la man la la guerre comme à la guerre à la guerre comme à la guerre sen dejeu nday Macky Sall yow ak sa jabar ak ku ànd ak yow ak ku la bëgg sen dejeu nday affaire yi amutal ay génne kayit ak génne papier man maa leen défier seen dëjjëw ndey seen tuunu ndey Macky Sall di naan sama café nag café gu tàng gi lay ubbi sa data ndey sotti ko ci bi mooy deuxième fois bu may dugg li ak sama aal di katt ndey Macky Sall quoi caga bu katt sa ndey bi suba ngoonoo ba bëccëg yaa ngi kattante ak sa koy bu ndaw Macky Sall sa dëjjëw ndey saa yoo yeewoo yow sa jabar dafa xeeb sa koy woowu noon sa cuucu boobu sa jabar dafa xeeb moo tax day dem di encaisser ay jon doomu toj sa cottu ndayam bi maa katta ndayam saaga maa katt cottu ndayam saaga man la waaye man duma sëriñ duma ay ñodd ay duma sëriñ de man boy street boy la hood boys in the hood seen dëjëw nday Macky Sall seen dëjëw nday ay bul saaga mel ni benn sëriñ ngeen fi am wala benn benn xut bu samaan wala benn waaye benn ibaadu man may street boy may boys in the hood di boy mbedd seen dëjëw nday Macky Sall sa tuunu nday yow sa gouvernement lay téye katt ko lëfal nday ci sa ja bunu jabar seen dëjjëw nday waay seen cott nday tooma xaram jàpp ay papay jàmbur di kat di dug di dugal ci kaso yi jàpp ay yaay jàmbur di dugal ci kaso yi jàpp ay doomu jàmbur di dugal ci kaso yi gars yi nekk fi di yërëm tëlu naan ay Macky Sall Macky Sall bàyyi damay toj sa cott nday yow Macky Sall damay daxaar sa nday laa la wax sa dëjjëw nday Wahyo, yow yow li ngay def mo raw saga sacc toja nday alalu sénégalais yi kat nday alalu yi di ko katte ay tiaga sa jabar di dem di ñukay kat ci mbedd yi ñi kat nday sénégalais yi lu ne nga leen di def après ñeen no bul saga bu ko saga te mom mu leen di saga suba ngon japp ay papay di tecc ci kasso bi pap ala ñaa xana du papay jàmbur ana domami ana amidia ana domami sen dëjëw nday bepp nafiq wala ngeen foog ni ben ibadu dama dama ci dama fi ñoddi ibadu wala dama fi ñoddu ñoddi khutbu saman wala yenentu nenañ saga saaga yàkkamti xeex la te man dama bëgg xex magi Sall sa dëjëw nday sa yo yeewoo dina kat sa nday man ma la wax lolu yow ak sa jabar dina toj sen ciotu nday dama karam bi kaw mu dajjaw ndayam bi fils de pute bi màgg ci baadoola yow di jaay doole man kaay def troisième mandat fu ne ni ci trois sénégalais taxaw leen am leen seen fulla am leen seen fayda dee benn la proof of life kenn du dee ñaari yoon dëkk bi nga gis dafa am ñu taxaw xare ko pour tey ngeen mun a taxaw di dox seen soxla am nañu xare woon ak tubaab yi am nañu xaré won ak nasaraani yi ñu nekk nday ci temps bi di dund ci temps bi di subir ay injustice di subir njaayam doole ñi ñi tek ñi ñi tek bepp xeetu nattu ñu tok fi yolom geño di di yolom yolom lu quoi di yolom yolom lu ak yambar yambar lu fi ku fi nangu doon mbam gaay yek sa kaw Afrique yëpp ñun dafa melni ñoo ci gëna ñak fu la dafa mel ni ñun ñoo gën a ñàkk fayda Afrique fii yeneen dëkk yëpp ñu ngi tegal nday gaay doomu xaraam yi nekk ci kaw ñun ñu toog gaay di ñu jàpp xob mais ñaata nit la gaay yi tëj ci kaso bi mais chaque semaine ñu tëj nday nit yi si kaso bi ñi ñu kat ci seen nday lañ ay baadoola lañ ay carax ñu doon takk fi di feer lañ lañ ay doomu biiral lañ lëfal ndayam amuñu ko ñëw tey di teg di tegu sañu kaw di ñu def di n'importe quoi mais mel ni ay góor newuñu senegal jigéen ñi sax ñooy jël place góor yi di bumax góor yi léegi di jël seen place góor yi toog non bu ko euh, di non di joytu di pleurnicher mais what the fuck is going on mais lan la mais lu xew fii góor day dëggal boppam góor day dëggal boppam seen caapanday ak sàll ko katt lafal la wax naa leen nag Macky Sall dafa bëgg def def e mandat lu leer nañ la lu leer nañ nañ nañ ba ba légui ma ngi toog di xool de source sûre Macky Sall dafa bëgg def 3e mandat dinañ toj ndayam nag bu ko fi naré def dinañ Dakar ndayam bu ko fi naré def amul tul ay dafa leer légui dafa leer nañ nañ nañ de source sûre ñi nga dajalé wa France France consulat ba nek mantala Nous avons ci dañ koy ci ay sénégalais gis nga am leen ful la dem leen Mantes la Jolie ñooñu nekk di pétition pour réclamer la troisième candidature de Macky Sall que Macky Sall m'a créé moo jox waa un la Jolie consulat pour boo fa jaaree da ngay dañ lay jox 1500 euros 1500 euros nga bind sa tour signé tous pour la candidature de Macky Sall de Macky Sall tous pour la candidature de Macky Sall léegi gens ñu pétition 1500 1500 euros 1500 euros nous avons les dem ay Nations Unies dem avons Union européenne ne lii sénégalais nous ñoo pour la troisième candidature de Macky Sall. instant 1500 lañ nekk di jox affaire ba message ba en France souvent vous avez am réunion proposé 2500 euros. 2500 euros Ni 1500 euros pour ñu ñëw ku ci ñëw dañ lay jox nga joxe sa sa carte d'identité ñu photocopier ko ñu nga bind ñu bind sa comme quoi nous réclamons la troisième candidature de Macky Sall le peuple réclame la troisième candidature de Macky Sall Vous ñu dajalee loolu que ko yóbbu ci instance dirigeante yi nekk ci monde bi pour taxaw wax comme quoi que sénégalais ont réclamé la troisième candidature de Macky Sall Macky Sall monté euros euros France la am da ngeen di taxaw la jolie ko Vous mu day joxe ngeen ndayam ngeen le ndayam Vous fa pour Vous euros nous ne réclamons pas la troisième candidature de Macky Sall le peuple sénégalais ne réclame nullement la candidature, la troisième candidature de Macky Sall. Macky Sall a fait ses deux mandats, c'est fini. S'il veut créer une guerre au Sénégal, il n'a qu'à essayer de poser une troisième candidature. Ce qui équivaut à une guerre civile. Et Macky Sall veut mettre ce pays en chaos. Le peuple sénégal, sénégalais ne réclame nullement la troisième candidature de Macky Sall ce qui n'est pas démocratique ni républicain. Macky Sall est un voyou, un bandit de grand chemin qui tue les Sénégalais, qui est en train, en ce moment-là, là où je vous parle, qui est en train d'emprisonner tous les Sénégalais, tous les citoyens sénégalais qui réclament justice, qui réclament euh, la démocratie, la liberté d'expression. Là où je vous parle, il a emprisonné tous les activistes sénégalais sont en prison tous les activistes sénégalais, des journalistes opposants qui s'opposent aux troisième candidatures, tous les lanceurs d'alerte sont en prison en ce moment, là où je vous parle. Une justice baïonnée, une justice instrumentalisée, une justice à deux vitesses. Donc, nous alertons l'opinion nationale et internationale à agir au plus, le plus rapidement possible dans les affaires internes du Sénégal parce que le président Macky Sall est en train de concocter un plan machiavélique qui peut tuer ou écraser tous les Sénégalais et pris de justice. Il a mis des milliards en armement à l'achat d'armement lourd pour la police et la gendarmerie, afin qu'ils tuent tous les Sénégalais qui refuseront ou bien qui se poseront devant eux pour refuser la troisième candidature. Pour des intérêts crypto-personnels, des intérêts géopolitiques, à savoir le pétrole et le gaz, les contrats, tout le peuple sénégalais dans sa globalité dit non à la troisième candidature de Macky Sall qui peut engendrer une guerre civile. Donc, nous demandons l'opinion nationale et internationale à agir le plus rapidement possible. Et nous sommes tous debout et je pense que Macky Sall bu ñu naree ne day def troisième candidature dina jaar ci suñu kaw ñun ñëpp billaahi du am wallaahi du am wataalaahi du am benn kilifa daf ma wax yàgg na ne ma jàppal lii ma lay wax Macky Sall day dem mais du demee noonu li ma lay wax yàgg na de ma ne ko nan lay demee mu ne ma dina rey sénégalais yu bëri dina tëj ñu bëri deret bu bëri dina tuuru mais xool naa ba fond li ma yàlla may ci xam-xam yépp Macky Sall du toogaat ma ne ko ah, mu ne ma waaw loolu nag tey la mi ngi firndéw parce que lépp li nga xam ne mi ngi koy préparé mi ngi koy def lépp lu mu préparé wu mi ngi koy def jël na généraux yi ñi nga xam ne dañoo sant saaña jaata ñep mu yobul len au frigo ñëpp KCC yëpp yi nga xam ñoko ñoo ko waroon ñu ngi au frigo généraux yi sante saña yi sante jaata ñi ñep dañ leen jël yobul len au frigo bañ leen laaje dañ leen Macky Sall mo leen dem leen tok kër ga après dañ leen wo jël ñom mbay Cissé wërale jël ñi nga xam dañ ko jégué généraux yëpp am 60 ans mu yokol leen 2 ans muy 2024 kon lolu moy tok leen xaar ñu ray Sénégal yëpp. Nous leen xaar ñu ray deux ans quest la que yokal deux ans moy 2024. en 2020, mille lañ y mu deux ans deux ans Nous sommes leen xaar ñu reyandoo sénégalais yi jël ay nitam nous sommes yokku len commandant de l'air commandant de terre commandant euh, des forces armées commandant de la gendarmerie ñëpp mu yokal len ku deux ans y a trois ans y a quatre ans donc tout le monde nous fii ba 2024, 2024, nous sénégalais on va écraser tous les sénégalais comme ça prendre euh, euh, le pouvoir et là je peux vous libérer c'est ça son système nous disons non nous refusons catégoriquement prêt à mourir mais Macky Sall ne va pas prendre ce pouvoir là encore une fois Donc, ko fi Macky Sall a emprisonné plus de 50 sénégalais ils n'ont ni volé ni pris l'argent du contribuable ils étaient juste des activistes des rappeurs des lanceurs d'alerte des journalistes Ils Takal été di force ay forces spéciales terrorisme accusé de terrorisme sur du faux donc jël Badio Camara changé ko indi ko def ko président conseil constitutionnel te mu war a retraité mu yokk âge am donc ñëpp ñu waroon retraité pas yi salté yi doon retraité yëpp Macky Sall na leen généraux yi Badio Camara ñëpp tegaat na prêt pour l'affrontement Macky est prêt pour mettre le pays dans un chaos total total Macky est prêt à mettre ce pays dans un chaos total nous serons debout il aura affaire à un peuple très déterminé et prêt à en découdre avec lui et ses sbires. Nous sommes prêts. Nous serons prêts. Et Macky Sall ne va pas prendre ce pouvoir. Il va fuir. Il va essayer. Il va tuer les Sénégalais. Il va tirer sur les Sénégalais. Il va verser beaucoup de sang il versera beaucoup de sang avant de quitter ce pays. Mais il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Il aura affaire à une jeunesse très déterminée. lu ma kilifa woo waxoon mi ngi ba léegi te ba ma koy wax def na ñaari at def ñaari at ci bi ma je ne ma ki ngay Qui est dina fi du am ko wër ni mais du dem mais dina bari dina lool Sénégal ñu bëri dañ dugg kaso qui leen tey ñaata ñu dugg kaso ñaata la dugal il a emprisonné tout le monde tous les Sénégalais tous les activistes tous les tous les journalistes les vaillants journalistes les activistes les combattants depuis bu il fait que écraser Diouf il a essayé d'écraser euh, euh, Ousmane Tonkara. Euh, il a essayé d'écraser les toutes toutes les spéciales. spéciales. il a essayé d'écraser Ousmane Sonko il a il a tué 14 personnes plus 3 en Casamance 17 personnes. Macky a tué 17 personnes. Emprisonné plus d'une trentaine de, Sénégalais. Sur du faux. Des activistes. Des lanceurs d'alerte. <coughs> Des rappeurs. Des journalistes. Des combattants. Il écrase Nous allons défendre la patrie nous défendrons cette, patrie qui nous appartient tous, qui est le Sénégal, que nous aimons tous. Soyez dignes, soyez prêts. Macky Sall du fi ma Macky Sall du fi en France y'a la waxal taxaw leen temm Macky Sall li mu def France ca concile yi di joxe mille cinq mille cent euros naan day korom katt leen seen nday ñoom ñëpp ku fa taxaw naan day joxe ñu koy jox mille cinq katt leen seen lëfal nday ñoom ku ko def fii maay toj sa cottu nday na kenn na Macky Sall def loolu fii maay dëgg sa nday fii fii fii man naa wax loolu fii fii fii ci Canada ku ko fi def may katt sa lëfal nday fii France am leen seen fulla jóg leen ngeen taxaw consulat mi commencé depuis le demb fay dem 1500 euros bind pétition nous réclamons nous demandons la troisième candidature de Macky Sall le troisième mandat le Macky Sall ak nangam ak nangam ñu di jox 1500 euros suba réunion wote nañ réunion d'urgence suba dañuy Sénégal ñeu fofu ñi 2500 ñi bañ leen bañ indi de combat mi ngi indi ay est en train d'acheter par la voie occulte des armements lourds pour tuer les, ces Sénégalais, pour tuer les, les, citoyens sénégalais, pour créer un chaos, une guerre au Sénégal. Des milliards, 45 milliards en armement. 45 milliards du faux en armement, des chars de combat, des fusils, et tout. Ce que vous savez, c'est les Sénégalais. Nous avons proposé 2500 euros, nous avons proposé 1500 euros. Ça dépend de qui. qui m'a message un message, 1500 euros. Je suis venu à l'automne, bay envoyer un message nan ko damal 1500 lolou yomb na comme ay dof lañ mante 1500 li mante la joli la moy lañ fa def bii passé consulat la xawma ambassade I don't care ko mais amna lañ fa euh, créé ba Sall ñewon euh ko donc mante 1500 la. Mante la Jolie fa jox message la yor kon taxaw len temb am am len fayda man du fi troisième candidature du ko fi def du poser. et nous sommes prêts bu ni ay garde corps a essayé d'éliminer de tuer d'extrader d'emprisonner, d'empoisonner tout opposant. J'alerte l'opinion internationale. à orienter, à orienter les deux yeux sur ce Sénégal. Macky est en train d'extrader des gens sur du faux, des mensonges d'État. Il a extradé Hassan Diouf. Il a essayé d'extrader Ousmane Tunkara. Il a emprisonné un très grand journaliste. Pape Il a emprisonné tous les activistes sénégalais. Tout. Abdou Karim Gueye, Cheikh Omar Diagne, euh, euh, il a extradé, il a extradé tous les journalistes. Gars, vous voulez me désorienter. bu dee dafa am kenn ku fay saaga garaawul baay leen ko dinaa katt ndeyam ak Macky Sall loolu gara garaawul concentré wu si si li may wax. bu fekkee benn élément la man mënu ma jël sama temps naan damay wër fii benn boy buy saaga na katt ndeyam moom ak yaayam ak baayam seen dëjëw nday ma lam leen katt ko nday ci bajo jabaru Macky Sall bi. ay sa lu mu tudd ku katt ndeyam ko Marème Faye Sall Marème Faye Sall doomu caga bi. kon bu leen ma émotion bu ma yóbbu ci ay émotion di ma désorienté am so focus. you know I stay focus ci li ma intéressé bu ma paree fi katt la fal ndayam moom moom laay dajale moom moom di di saaga laay takk ba ak baayam ak yaayam bi ko jur te munoon jël protect jëluñu protect ñu bàyyi ko muy katt ndayam fii moom laay jël ak baayam bu ko jur ak yaayam takk seen nday ci protect wan leen ni boo leen boo leen di kattante yéen ñaar da ngeen waroon jël protect doomu katt seen nday yi ngeen jur doomu dëgg ndayam bi mu ñëw ci internet yi di di di nekk benn bande internet ma kat seen ndey ci Protet kat ubbi ndey data ma jabaru Macky Sall bi nga xam ne moom nañ koy kat sans Protet kat ko ndeyam foofu tëj ko. dugal ndeyam ci data Marème Faye Sall bi tëj ndeyam foofu ci Protet ne ko del del doomu xaram bi. oyof bu kat sa ndey bi ñëppoo la koy wax sa dëjëw ndey oyof nga kat lëfal ndeyam oyof sër. ma kat ci data data Marème Faye Sall bi ne ko del kat ndeyam di jël Protet doomu xaram nan ngay mun a xoolee ba laa dernière fois. Euh, Mame Mbaye Niang di katt sa ndey sans protect doomi xaram Marème Faye Sall ku katt sa ndey caga bu dëgg sa ndey bi dinaa dëgg sa ndey suba yow sax jëkkër ji katt ndey pataapu bi dinaa dëgg seen ndey suba seen lëfal ndey maa leen gën a katt ndeyam fuuf seen cottu ndey donc lii laa leen di wax pare leen suba mooy live bi suba la tey dama leen di wax maanaam Macky sal mi ngi préparé troisième mandat li muy def noonu yëpp oto boobu mu jël génn troisième mandat demande sociale day demande sociale troisième mandat demande sociale c'est pas de la démocratie Macky est un très grand, bandit de grand chemin qui essaie d'extrader tous les opposants ça passera pas avec moi je m'en fous ici c'est Canada ils respectent le droit des citoyens on ne peut pas extrader ici on n'extrade pas ici des opposants on n'extrade pas ici des combattants pour la libération de leur peuple. On n'extrait pas ici des rappeurs, des activistes. Ça ne se passe pas ici au Canada. Peut-être aux États-Unis. On peut les extrader. Il y a combien d'immigrants de, qu'ils veulent extrader et qu'ils fuient pour venir ici au Canada, pour demander l'asile. Ici, c'est la terre d'asile. C'est la terre de la liberté, des droits humains. Ici, c'est Canada, c'est l'un des meilleurs pays du monde qui, savent, qui connaissent les droits des Sénégalais, les droits des, des immigrants. Ici, c'est vrai, vrai, vrai droit. ce c'est pas comme Sénégal, un pays de voyous, de bandits de grand chemin. Quand l'Amérique, a comme kam Amérique laa wax ñu lay créer fii ngay ci frontière bi ngay taxaw comme quoi que yow euh, da ngay chercher asile ñu jël la duggal la fi jox la kayit ngay liggéey yor sa combien lañ doon jéem a extrader aux États-Unis ñu daw dugg fi c'est l'un des meilleurs pays du monde ici c'est pas Sénégal le voyouterie là les voyous les bandits de grand chemin là qui sont au Sénégal donc n'hésitez pas musuñu toog di xalaat ay extradé ay bandi ay jàpp Macky Sall sa dëjëw ndey ñun musuñu toog di xalaat loolu ndax seen baay sax mënu ko papay maamu Macky Sall sax mënu lu ma lëfal ndeyam seen dëjëw ndey saa yoo leen yeewoo Macky Sall sa lëfal ndey yow sa jabar ku katt sa ndey nga te dinaa daqar sa ndey man maa la wax loolu dinaa daqar sa ndey mu katt sa nday bi Macky Sall prépare la confrontation. Il veut créer le chaos dans ce pays-là. Il a acheté des armements. Il a acheté des voitures pour aller contre-émeutes, anti-émeutes. Des armements pour tuer tout le Sénégal et prendre le pouvoir. Nous disons non à tous ces généraux corrompus, à toute cette administration corrompue qui pue de la merde donc taxaw prêt pour la révolution prêt pour la résistance résister résister résister une patrie se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent résistance Nous que ci de calculer quand nous nous calculé nous, un autre soldat est tombé Pape un autre soldat Macky Sall vient de faire tomber un très grand soldat de la liberté un journaliste qui vient d'emprisonner le discours de Macky Sall est très différent quand Macky Sall est dehors son discours est super différent au discours qu'il tient dans son pays qui est un discours de va ans en guerre un discours de menace. Macky Sall n'est pas républicain, c'est un voyou, c'est un bandit. Il tue, il extrade, il emprisonne, il, euh, empoisonne. Nous disons non au troisième, à la troisième candidature. Nous ne parlons même pas de troisième mandat. À la troisième candidature de Macky Sall. Et il verra un peuple très déterminant et très déterminé devant lui lui et sa bande de malfaiteurs. Et Inch'Allah, demain, ne vous inquiétez pas et ne vous en faites pas. dina ñew live leen maram fay Sall mi nga xamni mom mom lañuy oyof de kat avant Macky Sall te ba légui ñing kay kat ba légui maram fay Sall téwul nday datam bobu nonu bu kat ndayam la ci yaayam la ko Oumiatou Diallo ci cagatu lañ ko jëlee foofu cagatu gu metti doomu xaram la mu jur doomu caga muy Marème fay juraat benn doomu caga muy doomu katt ndeyam bi nekk Saint-Louis doomu xaraam jooju noonu ma cuucu fay ak yeneeni caga-caga yu mu jur ku cottu ndeyam la ak mu mujjee ci Omer Seck mu yóbbu ko Jurbel ñafaat ndeyam foofu tamit bàyyiwaat ndeyam mu yaay Marème Faye caga bu katt ndayam la Marème Faye ku toj cottu ndayam caga la moom mooy auditeur dinaa leen wax lan mooy la Macky Sall tam ku toj cottu ndayam la caga bu dëggaw nday ndayam la ay caga ngeen fal ay arriviste ay doome xaram Bassirou Gueye maa ngi ñëw fi ci yow toj sa cottu nday yow di ñëw ci doyen des juges maa xam Dakar ndayam moom ak doomu mandikat bu ñàpp ndayam boobu noonu di di di Hamadi Diouf seen dëjëw nday sa yoo leen yeewoo seen cottu nday ñi ngi ñëw nag ngeen da ngeen di instant yi lepp luñ mëna def pour éliminer Ousmane Sonko ñi ngi koy def. Sénégalais galay taxaw leen taxaw leen taxaw leen Ousmane Sonko japp nañ 5 gardes du corps japp nañ chauffeuram dañ dañ leen bëgg dañ leen bëgg empoisonner ils veulent empoisonner là en ce moment là ils ont arrêté. tous les presque les tous les les trois tiers les 5 cinquièmes des gardes du corps de euh, de de Ousmane Sonko et son chauffeur ils veulent les empoisonner. Ils les ont déjà emprisonnés et ils essaient de les empoisonner. que jam la ñi ngi bëgg a garde corps Ousmane Sonko yi ñi ngi di ñu dañu am nañ sax nañ ko sax Ousmane Sonko japp nañ chauffeuram tay dafa di porter plainte ko ci mais, mais est-ce que vous, vous vous rendez compte de ce qui se passe au Sénégal Mais alertez l'opinion internationale, mon Dieu Ils sont en train d'emprisonner, d'empoisonner tous les opposants au Sénégal. Les journalistes, les vrais journalistes, je ne parle pas des journalistes. Cinq gardes-corps de leurs opposants ont été emprisonnés le chauffeur bi nga d'hommes, dafa déposer arrêté ko il recherche il cherche encore d'autres à emprisonner d'autres je vous avais donné la liste hier la liste qui est sur la table du procureur de la République du Sénégal je vous avais donné la liste et je l'ai ici la liste ñi nga bientôt ils seront emprisonnés ñi ngi je vous avais donné la liste Bientôt. Je vous, je vous, je vous répète encore. jëndal ay armement jëndal bombe jëndal gaz jëndal lépp dama ne doo fi toog troisième mandat kala na xamoo katt nday Macky Sall fi katt sa nday tok. man maa la ko wax voilà man nak man may Mollah Morgun de wax naa len ko nak. man moom bu ma kenn naan ay way bul saaga maay katt la fal ndayam saaga maay katt la fal ndayam saaga Macky Sall Macky Sall ci boppam day saaga ngeen mel ni ku yor ab benn imam bu leen di jiite Macky Sall ku dëgg ndayam la naan kotu sàngara bu katta ndayam la kotu cigarette la jabaram day tux cigarette jaga jabaram caga la may katt ndey saaga ñoo xam ne dañuy saaga Macky Sall dàq saaga ndey fii saaga katu ndey la moo tax may katt la fal ndayam di ko saaga ndey parce que ñaari saaga katu nday la day saaga nday may saaga nday Macky Sall dinaa toj sa cottu nday xam naa yaa ngi toog pale naan man ak ak yow tamit ak yow tamit dinaa dëgg sa ndey yow sa jabar dinaa kat sa ndey ay naankatu sàngara ngeen tuxkatu sigara ngeen te da di saaga ndey mbete senegal ab imaam a jiite wala ab sëriñ ku ko jiite di mandi ba ne tat di katt ay caga di di saaga ay ndey kooku kooku kay bu la jiitee boo saagaa ndey wàcc nga Macky Sall di saaga ndey mu jiite la boo saagaa ndey wàcc nga dëgg-dëgg kër gu nekk kilifa ga na mu mel noonu la waa dëkk bi di mel kilifa gi dey saaga ndey ñu tam ñu ñëw taxaw katt la fa ndeyam saaga ndeyam kilifa bi caga moo tax réew ma yëpp caga la cagatu lañ bëgg Sénégal boo waxee sexe ñëpp taxaw parce que njiit ma cagatu jabaram cagatu seen dëjjaw ndey amu katt seen ndey noonu maay katt seen lëfal ndey daam mbóot yaa ci table lu et sur son nom est sur la table du procureur Amady Diouf tu es traqué Dambodj bul daw bul deltu ginnaaw nak mais tu es traqué yaa ñi ngi lay sous écoute Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur ni lañ ko bindé sax Dambodj syndicaliste lañ bind Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur Pape Sané journaliste man xawma ma dé de Pape Sané xaw ma ko de xaw dafa ñuul xawma dafa xees xawma dafa njool donc man liste de la yor di len ko wax liste bi la yor di len ko wax syndicaliste Cheikh Bara chroniqueur mu ñaar xamna Pape Sané journaliste xawmako Cheikh Gueye journaliste xawmako sadikh Sadiq Top journaliste xamna ko Pape Ndiaye journaliste xamna vous êtes tous sur la table du procureur vous êtes suivis comme du lait sur le feu vous êtes suivis comme du lait sur le feu et je le répète Dambot syndicaliste y'en y'en ci top Pape Alé Niang na Cheikh chroniqueur pap Sané journaliste Serigne Salou Gueye journaliste Sadir Top journaliste pap Ndiaye Pap Ndiaye journaliste ñi gis na len et je vous donne aussi le numéro de téléphone de votre doyen des juges bo len ko direct direct direct ok léegi ma jox leen son numéro de téléphone aussi wala parce que je reçois beaucoup de messages là day tax sama Sénégal parce que les gens me contactent tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac à la seconde des centaines de milliers de messages à la je reçois des centaines de milliers de messages à la seconde damay dem ba réer du ma xam sax fu ma fu samay documents yi sax day jaxasoo ak kii yi ma papa papa mais maa ngi sant yàlla loolu damay gërëm yàlla rek alhamdulilah xëy na yàlla moo ma nattoo loolu quoi waaw sénégalais ñoom lu jiital ma rek waaw moo tax quoi maa ngi leen ciy remercier mais dama dem ba nga xam ni damay réer sax si samay document ndax ndax liñ may yónnee lañ may yónnee lañ may envoyé la ñuy bind nday sànn dama ne lu waay ragal a wax jox leen ma ko ma katt seen cottu nday ñoom lu waay ragal jox ma ko ma katt seen cottu ndey Macky Sall ak ñoñom ma daxar seen ndey waaw lu waay ragal Sénégal jox ma ko man ma toj seen cottu ndey ñoom ñëpp man maay wax lépp ba ci katt lëfal ndeyam te dëjjëw ndeyam mënu luñ ma ko waaw man maa leen di të seen dëjëw ndey seen kan moo leen ragal kaa la ñu def procès ma toj seen cottu ndey kaa la ñu def procès ma toj seen cottu ndey Willy Pande nday Sénégal fépp génn ñëpp ñi ngeen rayek ñi ngeen tëjëk ñi ngeen di jéem a rëbbëg lépp lépp laay katt ndee boo leen yaakaare ni yéen mun ngeen maa xam man bu ma gisee ñaari fan yi ñëw leen ci man rek laa xam ne dëj doomu dëjoo ndayam yéen a ngi pexeel Pape Alé Niang fan yi yëpp da ngeen doon ñëw gisuma ko sax dama leen mais suba naa leen jox numéro bi gisuma ko parce que xam naa suba naa leen jox numéro bi si je reçois trop de messages trop trop vous vous vous suba ba guddi c'est des messages donc les gars soyez prêts soyez déterminés taxaw leen bu leen daw bu leen ragal ñii ay ancien spermatozoïde futur cadavre lañ ñaari fan yi bu ma ni ñëwuñu parce que bu commencé di dóor ñëw nañ di négocier ñaari fan yi yëpp ñëwuñu ñëwuñu démb ñëwuñu tey ci laa comprendre ni ñii dañoo taxaw temm pour man nekkuma koo xam ni damay am naa fitu ragal man nee naa leen ragaluma lëfal ndeyam te kenn mënuma bañ loo li may wax ma ne suba ñëw leen taxaw fii suba à vingt suba non suba c'est à waaye vingt heures je pense vingt heures GMT ñëpp ñëw taxaw ma wax leen Marième Faye Sall nu mu nekkee caga ñu koy katt ñëpp Macky Sall ñu mujjee katt ñëpp ak ñaareelu jabaram bi lépp dinaa leen ko indil ki mu takk takk suuf sëriñ Bassirou Gueye la général Moussa Fall Antoine ñàkk jom doomu caga bi indil leen aussi jabaram euh, euh, nekkaalem safurlaa nekkaalem Dior Diagne ñoom ñëpp suba dinaa katt seen lëfal nday fii nii ba ci kàmb ngeen seetaan ko vingt heures GMT seen dëjjëw nday lépp lañuy ñuy claata te boo leen fi ne troisième mandat dinañ dakar sen ndey ngeen xam ngeen troisième mandat sen cottu nday taxaw len taxaw leen ah. na ñëpp taxaw soyez déterminé on va pas nous la faire on lâche pas l'affaire ole donc suba inshallah 20h GMT ñu kat nday lepp fi lepp lañuy tax sen seen nday ndey man maa wax nak Macky Sall saga nday rek lay def mo dàq saga nday fi caga bu katt la day jël ci suuf moo dàq katt ci biroom bi ba pare balaa maa dee ñëw na bul saaga Macky di saaga may dëgg sa nday Macky Sall man maa la dàq damay dëgg sa yow man a yow kese ma katt sa lëfal nday yow sa dëjëw nday Assane Diouf ngeen di wax man maay dëgg seen nday benn par benn seen cottu nday taxaw di ngeen da ngeen di naaw seen lëfal nday ma ko yaa katt sa ndey doomu baadoola bi sa yaay sa yaay doon sa baay di gardien jur la sa dow sa dëjjëw ndey ñu joxe woon la fële ci Kaolack nga màgg doome xaram nga war a defar Sénégal nga yàq Sénégal yaa katt sa ndey Macky Sall yaa toj sa cottu ndey Macky Sall yow yaay koo xam ne waroon sax juddu yow sa baay bu xamoon ni lii lay jur kon takk na la ndey ci kapoot ba katt sa ndey ci biir duus yaa dëgg sa ndey Macky Sall yaay traître Macky ak sa baay li mu daj ci kaw suuf sa yaay lu ñu teg ci kaw suuf sa baay sa yaay nga xam ne daa jaayoon ay ay chaîne am ak ay lépp lu mu yoroon ñu héberger la université yaa dëgg sa ndey Macky Sall sa jabar a gën a katt ndeyam moom moom bañ na ko ba juddoowul ci région yi ma nga juddee ca village ya Medina Sabax mais yéen a katt seen ndey juddoo ci àll ba àll bu ñuul ba àll bu xonk ba ngeen waroon ñu defar réew mi yërëm réew mi ngeen di revanche ngeen di créer sen revanche ci kaw rew mi japp wa dekk bi di len toroxal di len neewal doole yeen deug sa nday yeen yeen sen juddu amul njeriñ mak ya kat sa nday man dama lay xol sax nan ki mo deug ndayam ki mo toccott ndayam mais kuy wër doome xaraam jàppal Macky Sall ku ubbu data ndayam la mo jabaram ak ñimu mu sen sen nday yalla yang ngeen kat sa nday ci lakum xorom ado troisième mandat nous le peuple sénégalais n'a émis euh, aucune pétition le peuple sénégalais n'a émis aucune pétition n'a demandé ni euh, la candidature la nouvelle une nouvelle candidature de Macky Sall ni euh, ni n'a demandé ni la troisième candidature de Macky Sall n'a émis aucune pétition et ne réclame ni ne demande la candidature de Macky Sall, qui est anticonstitutionnelle. Et le peuple est prêt, debout. L'opinion nationale et internationale, qui fait une pétition de Dakar Sandaï, qui fait une pétition de Tosso Tchotundaï, qui fait une pétition de Dag Sandaï, pétition Moufi. Macky Sall du fi katt ndayam doon troisième troisième candidature du fi toj cottu ndayam nekkat wala dinañ Dakar ndayam moom ba suul ndayam man maa ko wax seen dëjëw nday fokkit shit eh suba vingt heures GMT ñu katt ko ci ndayam nag génn lépp caga jeeg jabaru Macky Sall caga bi Macky Sall caga bi ñu mu àndal yi doomi xaraam yi sàcc yi criminels yi assassins yi ñëpp ñun ñëpp seen nday fii à la place publique wax ji jeex ñu jàll ci leneen one à demain incha allah vingt heures GMT jaajëf.